bon absent yi ñu am pour le moment jury 2 mo am ñaari absent ben gour ak ben jigen jury 1 am ben absent donc euh, total inscrit au niveau du centre c'est 565 candidats loolu lañ am. ay comme ni ngui koy à at bu jot euh, dañuy and ak euh, kilifa yi nga xamna ci ministère de l'éducation nationale andak ak aussi ñi nga xamna ne ñoo yor njàng mi fii ci région Dakar ñi jité les parents d'élèves ak euh, ñi fi nekkal gox-goxaat yi le maire de Hann bel dañuy def at bu jot dañuy dem visiter ci centre yi nga xam ne moom la ñuy defee examen comme ni ñu ko defee ci baccalauréat bi technique bi def ko ci CFEE bi tey jii aussi ñu ko doon def ci BFM bi tey nag bi ñu xëyee def nañ ñaari centre centre yoo xam ne si euh, mën nañ leen natt boo ko xoolee ci centre yi euh, les 45 centres yi nga xam ne ñoo nekk fii ci région Dakar bi ñu fa demee gis nañ ne deug yalla lepp li nga xamne waro nañ ko jël ci matuway té ñu waxtaane won ko ci rencontre ñu doon am ci préfet jité won ko liggéey ci ak les IF yi nga xamne ñoo nekk ci région Dakar les parents d'élèves ak maire yi nga xamne ñoom aussi dañu am ab liggéey bu ñu wara a liggéey ci walu njàng mi benn patch bo xam ci yoon mo leen ko jox matuway yoyep gis nañ ne wax deug yalla respecté nañ ko centre ñu jaar yëpp li ñu chef de centre yi wax président de jury aussi confirmé nañ ko mooy disposition yi ñu waroon a jël yëpp ngir examen bi jàll ci yoon jël nañ ko moo xam ci wàllu kaaraange la moo xam ci wàllu euh, électricité la ci biir salle de classe yi dafay dafay soxla aussi ñu am électricité pour que élèves yi aussi def seen examen ci condition yu mucc ayib loolu nag bu amee dafa fekk ne ñi nga xam ne ñoo fi euh, nekkal euh, gox-goxaat yi ànd ak euh, autorité administrative yi nga xam ne ñoo fi teewal ministre ak gouvernement bi ak responsable académie wu Dakar ci njiitu IA wu Dakar ak ñi muy liggéeyandool moo xam IEF yi def nañ liggéey bu mucc ayib ba ñu mën a am examen boo xam ne si depuis ce matin mi ngi jàll ci conditions yu mucc ayib di rafetlu seen liggéey di rafetlu si taxawaayu ñëpp ñi nga xam ne ñooy liggéey di jàppale école yi amoon na ndax avant ñuy accès fi ñu bari yaakaaroon nañ ne examen du mën a am mais bu examen amee nag jàll ci condition yu mucc ayib loolu dañ ci euh, jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne liggéey nañ ba ñu mën a am ci examen yoo xam ne si biñ ko commencé ba léegi moo xam ci examen yi fi jàllaguñ yëpp wax dëgg yàlla lépp lu état waroon na def def na ko loolu dañ leen ci ñaax di ñaanal élèves yi nga xam ne ñooy def examen bi yàlla defal leen sutura defal leen tawfeex ba ñu mën a jàll seen examen continuer seen jàng jariñ seen réew beaucoup. Nous avons visité les centres, les centres qui ont abrité l'examen de BFM. Visité le cours Sainte-Marie de Anne. Visité le lycée de, lycée de Anne. Et ce que nous avons dit, c'est un problème. Euh, euh, tout se passe très bien. Euh, candidats, nous avons amené une première ñetti fukk ak juróom-ñeent yu toftal euh, téeméer ak juróom-benn fukk ak benn ci lim boobu limu ndongo yi xale jigéen ñi ñoo ci ëpp ndax ñoom euh, dinañu constituer boo ko jëlee ci pourcentage bi lu tollu ci téeméer ak euh, juróom fukk ak juróom-ñaar ci pourcentage. ci limu mu jigéen ñi loolu tamit euh, lu ñu seetlu la ci fan ani at yi weesu mooy euh, que li jigéen yi at bu nekk day gën a yokk ren nag li ñu gis mooy que ne li mu ndongo yi dafa ëpp moo ëpp euh, lu toll ay fukki junne li mu centre yi ren moo ëpp boo xoolee li mu président de jury yi boo xoolee li mu surveillant yi ñu yi ñu woo ren moo ëpp te loolu la mooy loolu mooy wane suñu système bi moom dafay continuer di màgg te conditions yi tamit chaque fois dañ koy améliorer pour que euh, ñu mën a def examen yi ci anam yi gën a rafet euh, jot nañu euh, information yi ci ci ci yeneen yi mooy académie yeneen yi et que ñoom ñëpp lu ñu signalé mooy yëpp yemb na ñu ngi def seen examen sans problème tout se passe bien te même ci région yi nga xam ne ñoo nekk surtout ñu ragaloon mu taw ah nee nañ daal tawul kon ñu ngi sant suñu borom donc di ñaan yàlla pour mu continuer comme ni mu commencé nii ni mu dooree. waa xam nga ñun dund nañ fi ay atu Covid xam nga Covid bi ci biir nawet lañ ko defoon foogoon nañ ne sax.